asalaamaaleykum mbokk yi maa leen nuyu ku si nekk sa tur ak sant man Moussa Baye Fall wala Kàllaama Baye Fall maa leen nuyu waat di ñëw fii di waxtaan ak yéen si benn mbir bu am solo mbir bi mi ngi jëm si wàllu crise coronavirus bi instant bi nii comme si période de déconfinement lañ toll donc dafa am ay. mbir yu bëri yoo xam ne nii dafa day ñëwaat si wàllu crise coronavirus bi ku si nekk ak ni ngay réglé sa problème aussi dëkk bu nekk ak ni nga koy réglé mais man li may wax si li ma bëgg a waxtaane mooy li jëm si wàllu euh, Italie day maye kayit Italie day maye kayit day régulariser nit ñi te loolu dafa nekk débat depuis di si si wàllu confinement bi Espagne ñu ngi siy débat Euh, France la même chose Belgique ñu la même chose pour ñu régulariser ñi nga xam ne amuñu kayit voilà affaire bu am solo la si ñi nga xam ne ni am amuñu kayit leen si kontaan mais man du ma waxtaanewu ma si plan boobu loolu mais damay damay damay taxaw seetlu si boo xoolee mbiru mbay mayu kayit yi dafa nekk léegi business léegi business la business boo xam ne Italie moom noonu lay def te loolu est-ce que tey jotul suñu gouvernement yi suñu état yi delluwaat xoolaat seen bopp xam lan mooy suñu ressource parce que ñun suñu ressource dañ ko tuddee pétrole tubaab yi ñoo ñu koy fu ne nii pétrole bi la ñuy waxtaanee pétrole pétrole ñu ngi waxtaanee pétrole chaque jour pétrole or or mais est-ce que loolu mooy ressource bi gën a am importance ci suñu dëkk yi te ressource bi gën a am important tey jii moom la tubaab yi di utiliser mooy ressource humaine mooy jeune mooy ay xale ay ndaw tey jii ressource boobu la tubaab yi di gën a utiliser si si ñun ñun dañuy wax ay matière premier donte sax ñu ngi utiliser suñu matière première mais boo xoolee lii may wax ni xool ko dama la dangay taxaw seetlu te tey jii boo xoolee Italie mi ngi war a régulariser six cent mille personnes six cent mille personnes si li nga xam ne moom lañ jot ay info te pourtant mun naam am da koy ëpp mun naam am ëpp kon loolu boo xoolee loolu lan moo koy jox si ñan la koy utiliser si ay personnes si ay jeunes si ay ressources humaines yi nga xam ne lu si ñu si ëpp Afrique lañ jógee ñi nga xam ne si gaal yi lañ jógee tey jii ñooñu la Italie war a euh, régulariser te bu leen di ku si nekk da ngay fay ñi nga xam ne nii ah amuñu woon foofu kay te nekkoon fa te diggante bi nii nag dama lay wax xel benn xaalis la ñuy lijjanti lii problème mu xaalis la. ndax boo xoolee itali dafa jóge si crise crise wu 2009 bi ba mu si nekkee crise wu 2012 2000 2009 2010 2010 2011 2012 la woon jamono yooyu mooy jamono yi Grèce nekkee crise Espagne tout ba Italie nekkoon si crise bi jamono yooyu bi si Italie bëggee génn dafa régulariser woon perte nit ñi fa dëkk te ba mu leen régulariser dafa leen laajul ku si nekk booy dugal sa kayit nga dugal nga joxe mille euros léegi imaginer 1000 euros. nga régulariser si cinq cent mille personnes ñaata la ci xaalis bu dee six cent mille personnes la comme ni ñuy régulariser bu dee mille personnes day nekk six cent million d'euros loolu Italie mënu ko lijjanti te mënu ko lijjanti si Union européenne mënu ko lijjanti feneen sax la koy lijjantee ci ressources humaines yi nga xam ne ni moom ñooy dugg ci dëkkam te loolu si ñaata jour la koy euh, la maanaam ci euh, un mois quinze jours un mois quinze jours italien yi lijjanti lu toll ci à peu près six million millions d'euros mais xaalis boobu Italie mënu ko lijjanti ci ay lebi Union européenne te duñ ko def léegi foofu lu ma bëggee a expliquer rek ressource humaine bi nga xam ne nii ñun suñu dëkk yi moom la ñuy bàyyi muy dem topp naan ay waxi pétrole pétrole boo xam ne exploitation bi bul xam kañ lay doon balaa ñu koy jëriñoo bul xam kañ nekk mais li gën a am important te nga xam ne dafa teew dafa nekk nii suñu loolu dañ koy bàyyi muy dem loolu mooy jeunes yi jeunes yi dañ koy bàyyi muy dem te leneen li si garaaw mooy boo xoolee lii ban jàngat laa si am ni ñuy régulariser dañ ko jël ab lay italiens yi dañuy jël Europe dañuy jël ab lay naan non dañuy régulariser parce que. Covid bi tax sans papier amuñu woon fu ñu tëdd te boobu nit ñaa ngi wax confinement wala ñu naan non euh, liggéey clandestin bi tax wala amul njëriñ si ñoom te dafa am criminalité tout ça lañ leen war a en ordre loolu la ñuy layee mais loolu du du du du njëriñ bi njëriñ bi dëgg mooy xaalis bi lañ soxla xaalis bi lañ soxla xaalis bi moo leen si intéressé bu fekkoon tey jii mun naa gëm ne li ñuy wax dëgg la nañ régulariser nit ñi te amul fay. pourquoi nit ñi duñu fay cinquante euros jënd terme frais de dossier mais loolu duñ ko def parce que loolu arrangé wu leen loolu arrangé wu leen mooy seen suñu doole ak suñu suñu suñu doole bi nga xam ne moom lañ fi nekk di joxe moom lañ soxla te beneen bi si bi si garaaw mooy boo xoolee ñi nga xam ne dañ leen di régulariser ñi yëngu si wàllu tool yi la ñi nga xam ne nii dañ nekk di def mbindaan ñi nga xam ne nii dañ nekk di def femme ménage dañ nekk di def euh, aide-soignante mooy di jàppale maire yi si yi nga xam ne nii dañoo màgget ak yooyu mais liggéey yooyu soo xoolee da sa xel day delluwaat si wàllu esclavage liggéey dara newu si liggéey dara newu si de nekku nekkuma di di wax na liggéey bi de mais day day dafay da ngay defaat allusion que ne ñun suñu maam yi bu njëkk ñoom sax dañ daan bañ. waaye ñun moom dañoo nangu ñun ñooy demal suñu bopp bu njëkk suñu maam yi dañ doon ñëw fekk leen foofu day da esclavage day ñëw fekk leen foofu tubaab yi jël leen yóbbu leen bu leen yóbbu yee yan liggéey lañ doon liggéey tool yi femme ménage wala aide-soignante loolu lañ daan liggéey léegi est-ce que lii est-ce que nekkul lii mooy nekkaat rek euh, esclave mo esclavage moderne bu njëkk ñun ñoo dañu doon jël si mais fu mu toll nii ñun ñooy dem ñun ñooy ñëw di di di di wut si ñooy ñëw di jaayaat suñu bopp mais loolu yëpp dara waralu ko lu dul suñu sàgganu état yi suñu état yi dañuy nelaw di nelaw di nelaw di nelaw ba xawma daal kañ lañuy ñuy yeewu man xam naa ne est-ce que dinañ yeewu parce que boo xoolee koo yaakaar ne moo tane rek bu ñëwee gën a piir teewul nit ñi baadoolo baadoolo goo xam ne di lekk xaalisu réew bi amuñ si ngor ku si nekk boo faloo yow nooy fexee riche rek ngay lijjanti waa léegi est-ce que tey jii jotul comme ñun ñun en tant que africain ñun en tant que africain mënuñu gérer suñu ressources humaines yi mënuñu nga xam ne nii li ñu gën a amal njëriñ gën a teew gën a nekk nii mënuñu ko utiliser mais est-ce que duñu delluwaat suñu bopp si wàllu colonie est-ce que ñun tey jii jotul ñu ne waa ok peut-être jamonoy colonisation moo gënoon dox ko jamono jii de. coono gi ne neexaayu colonisation ak neexaayu fum ne nii suñu président yi wute na est-ce que te jii jotu ñu président yi nga xam ne nii ñoo yor réew yi nekk ay ministre ministre ministres yi genn waay nekk ay député wala tumu doon nga xam ne nii euh, France mi doon diriger Sénégal diriger Mali diriger moom mooy nekkaat ñu nekkaat ay département est-ce que lool bu ñu ko defoon pendant benn vingt ans sax nga yaakaar ne ñun est-ce que Euh, tukki bi du dàkk est-ce que parce que européens yi capable nañ am nañ xam nañ ni ñuy gérer ressources humaines xam nañ ni ñuy créer ay entreprises xam nañ ni ñuy créer métier et puis xaalis bi bu ñëwee dinañ ko def foog ñu ko war a def parce que non seulement am nañ justice aussi bu efficace am nañ justice bu libre indépendant boo xam ne nii ku si teguwul si yoon ñu teg la si yoon mais ñun loolu amuñu ko moo tax tey jii ma je me pose juste la question est-ce que du ñu delluwaat si njaam nga rek njaam gi moom ñu ngi si ndax euh, façon bee changé rek bañ ko doon defee vulgaire bi moo changé rek waaye ba léegi ñu ngi si mais lan moo lan moo des kay ñu jëlaat delluwaat suñu bopp rek def suñu bopp département pays Afrique yëpp nekk ay département yi nga xam ne mënuñoo dem. peut-être am na yoo xam ne pays yoo xam ne seen président ñu ngi góorgóorlu di def le maximum pour dëkk bi dem mais dëkk yi nga xam ne nii fañ nekkoon jugu fa pauvreté bi dafa gën a yokk est-ce que yooyu duñ ñu dilaat seen bopp def ay département transgéré peut-être mu tane ndax lii boo xoolee ñoo yam te leneen li si gën a garaaw si wàllu wàllu wutum xaalis bi nga xam ne nii sans papier ñoo koy may ñoo koy may européens yi buñ ko xasee am ñun tey jii bu ñu génnee ci crise bi Afrique bu génnee ci crise day lebi day lebi wax day lebi Union européenne day lebi FMI day lebi Banque mondiale léegi loolu dafa garaw ñun ñooy lebi mais ñoom ñooy utiliser suñuy doom pour ñoom ñu leen di suqali pour ñoom ñu leen di jox xaalis te tey jii buñ la xasee may kay nga am kay nekk si dëkk bi di liggéey c'est bien boo parce que di mën a dem réew ma di ñëwaat mais non seulement yaa ngi suqali dëkk bi parce que am nga kayit am nga liggéey am nga liggéey da ngay luwe kër da ngay luwe kër consommation fay courant fay ndox fay fi nga dëkk di lekk ak naan mais imaginez moodu moodu yi ni ñuy def fii yëpp di ko def buñ ko boole woon di ko def réew ma toog seen réew ya liggéey est-ce que ñun fu ñu toll nii dañ ko dépassé régularisation bi moom. buñ ko doon def te yàlla tax du am benn problème mais dañ koo deful te yàlla tax dañ koy mbubboo mais nag nañ koy defal dañ koo soxla xam nga dafa xaw a contradictoire ñañ koy defal dañ koo soxla parce que tey jii ku amul këyit nekk Europe buñ la nee dañ lay may doo ko gëmee danga koy soxla donc ñoom amuñu du seen fët parce que mënuñu si dara parce que ci position wii lañ nekk mais ñi nga xam ne di ko def business loolu la ñu war a naqarlu loolu lañu ñu war a fexe bu ñuy mayeeti kayit ñu fexe di régulariser nit ñi parce que dañ leen war a régulariser ak kii bañ leen laaj yenn somme yu énorme pour suqali seen kii loolu nag dara war ko xeex lu dul ñun jeunes yi ñu taxaw leve suñu mais wax ne ah mayum kayit gi baax na bëgg nañ waaye nag li ngeen si laaj dafa bëri te laajoo leen ko ngir dara leen koy laaj ngir seen poos ngir seen dëkk waaw te non seulement ñun boo leen ñu mayee kay dañuy continuer di participer parce que ku ñu jël nga liggéey di nga fay tax taxe yooyu day delluwaat ci gouvernement bi te avant yaa ngi ko doon fay parce que bu ñu lay liggéeyaloo noir ki lay liggéeyal noir moom moo koy bénéficié wu. mbir yi daal si wàllu légalisation bi loolu laa si wax bu ñu sañoon dina am mais nag war nañ changer modèle bi mu amee parce que boo xoolee. Italie moom moom la def business am moom moom ubbil na ay portam ak immigré yi ñuy jaar fu ne di ñëw si gaal yi waaye nag bu ñu buggee suux gars ñoo leen di yëkkatiwaat te loolu dafa jaral leeral dafa jaral leeral consommation bi ëpp liggéey di ëpp li ñuy def li fu ñuy jëlee seen xaalis mu immigré yi te buñ jugee nag di leen xas naan leen àndaat ak Casa lu nekk ñu leen koy wax façon traite bu nekk di leen traité ñu nekk te xamuñu ne ñii ñoo yor seen économie wàllu lu jëm si wàllu état Sénégal nag état Afrique moom war nañoo góor góorgóorlu gi moom xanaa dañ ko wax ba sonn sax waaye sonn nañ ne nekk si kaw bi di taxawaalu rek kon jaajëf wasalaam